ku songu sànku ku songu sànku ngeen lànk songu sànku ku songu sànku ngeen lànk gëmu leen ku songu sànku ana baa jaxate baa jaxate sax na ndax moom bu génnee mën naa kon nay fenam mais kenn woote na imaam la ab sëriñ la kooku bu bu génnee fii mu nekk ku muy waxati nga déglu ko ku ne yàlla la nee na yonent bi nee na di jële référence ci yàlla ak yonente bi ak mag ñu baax ñi ñu lay diglu nga dem bay jël référence ci Bah Diakhaté ak waxi Bah ba ba ba ba lor sa bopp nii kooku est-ce que di doona ko joxatam nopp di ko diglu ku référence oo Bah Diakhaté la digloo di ci jàkkaar ci ci ci ci tànt comme que ñukk yàlla ak yonente bi dem jàpp Bah Diakhaté ànd ngeen dem lii misaal la sànku nga yawe yow nag da ngaa sànku ci saa yet sànku ci bàttin yow sànku ci baatin sànku ci saay ci saayir ku daan référence o yonent bi dem ba référence o Bah yaa sànk sa bopp waaw yow même bu Bah doon wax dëgg sax warul nettali waxe Bah Diakhaté yow ak fi nga tolloon ci niveau xam-xam fi nga nekkoon yeneen yi nit ñuy wax yëpp ci yow nag intéressé ma sa vie privée la sa vie privée la sama yoon nekku ci mais nag li nga teg penc mi moo sànq ndax li nga ñu daa jox ñu koy consommé ak lii nga ñu indil daa bokkul ñun nag ñun xiif xiif xiif ah ngay togg ñuy jox bis boo toggee xeer yàqal ñu ko ñu romb la fi jàll loolu moo la dal li nga naan xëy nga diwoowul woon yàlla kenn mënu koo nax imaam benn bi ci topp mooy Adama Fall kenn gënu laa réew wax naa la ba tay mag nit bu demee ba gis bi jaaw ah mooy tóortóoru ndee la nga nekkoon bu gënul soppi ko Adama Fall nga tëg kicc di jaay arrogance ak réewande ci plateau yi biig foo fanaan biig foo fanaan jaboot jàmmay mbokkam yéene leen Ousmane jam jàmm yéene wut kenn ay ci yéen mosu a tudd chaque jour yéen a ngi tiré ci ngir weccet bu ñu leen di may ci réew mii la dëkk mun leen a wax ba mu réew mi su ko meree waar réew mi mere ko ndax ñoo ko yóbbu assemblée ñoo ko yóbbu palais ñoo ko jox si Ziguinchor mosu ñu leen dénk dara yéen ñiy wax di ngaam ñi leen di yabal di leen jox xaalis ngir di song Ousmane Sonko lii ngeen sañ ñoom sañu ñu ko waaye lu reen sa loxo lay naajte ah. saarata mi nga xam daa taxaw public baayam dee yaayam dee muy jirim jirim la moom saarata ndaw si saarata jirim la taxaw daggal saayu Ousmane Sonko man na jirim gi jirim gi nga doon wallaahi lancé moo tooyal sama xol barke seexul xadim mais sa sorti ba ca ndar ca mbuur te ca mbuur sa sorti ba yaa groupe whatsapp ba dëkk Touba lépp maa ngi saarata barke alxuraanu karim dorogo bi ngay dorogo nan gi ngay nan sàngara ñe andal ñepp xamna len xam waye du la yàq ndax jirim nga waye nak rewane dafa am fu muy yem de ay rewane dafa am fu muy rek la am ci lu wax nak man man na nangu nga dima saga dima def mais president Ousmane Sonko ko ci bolé li gonay wax dana ko wax waaw la sa wajur di touré ndox naa seet lu ma ca def dangaa réew nag ku réew nga ku ñàkk kilifa nga waaw te say mbokk nag moo tax nga di jirim kenn mënul dara waaye gis bu mu diggaatee nga waxaat Ousmane Sonko dara wallaay lancin dana tàng ci yow dana metti ci yow yaa képp ku ne sa ginnaaw waaw yaa man damaa xam sa information yëpp laa téye saarata mais ñoroo ñoroo gaynde Macky nag gis naa la démb nga taxaw di fëndal gaynde Macky jugal ci li nga ne jugal ci li nga ne laa nekkat ci li nga nekkoon fan yii